bisu lundi la woon yemoo ak juróom-ñaari fan ci weeru mai ci atum 2012 la Jules François Bertrand Bocandé daal di dëddu àddina bile icône bu football bu Sénégal wuy ci na boromam ca Metz ginnaaw bu mu amee 53 ans juddu ci weeru novembre ci atum 1958 ca Ziguinchor Jules François Bertrand Bocandé ab feebar bu yàgg lool moo ko yóbbu fukki at ginnaaw bi le disparition bu tragique lool bi nga xamante ne secoué na nation bu Sénégal ñiy yëngu ci wàllum football ci sunu réew di fateliku gaynde bilé samedi bilé di bésu anniversaire bu mu jënnee adina dinañu doré activité de commémoration bi ci ab messe ci cathédrale Saint Antoine de Padoue bu Ziguinchor dinañ ci toftal nak am match de football ci Stade situé Sitoé ay joueurs yu joggé ci ay club yu bëri yu nekk ci réew mi amal ndaje bilé ci ngoonaal bi ay autorité yu bëri it ñu ngi leen di xaarandi ci activité de commémoration c'était un lundi 7 mai 2012 que Gilles François Bertrand Bocandé nous a quittés. Cette icône du football sénégalais a été rappelé à Dieu à Metz à l'âge de 53 ans. Né en novembre 1958 à Ziganchor, Gilles François Bertrand Bocandé a été emporté par une très longue maladie. Dix ans après cette disparition tragique qui avait secoué toute la nation sénégalaise, le monde du football sénégalais se rappelle encore de l'homme. À l'occasion de l'anniversaire de sa disparition, des activités de commémoration seront ouvertes à Ziguinchor par une messe à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue ce samedi. Il s'en suivra un match de football au stade Aline Cette rencontre qui se tient dans l'après-midi opposera des joueurs de différents clubs sénégalais. Plusieurs personnalités prendront d'ailleurs part à ces activités de commémoration, nous a-t-on signalé.